di 6 mai 2020, le ministère de la Santé et de sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1182 tests réalisés, 104 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,79%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 100 contacts suivis par nos services. Quatre cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Pikine 1, Benetali 1, Sédhiou 1, Vélingara 1. 23 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Six cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fan et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est Comme annoncé hier, le Sénégal a enregistré son 12e décès lié au Covid-19 le mardi 5 mai 2020. Il s'agit d'un de 37 ans. Le ministère de la Santé et de sociale prie le bon pour son repos éternel au paradis et présente à sa famille euh, éplorée ses condoléances. À 1433 cas ont été déclarés positifs, dont 493 guéris, 12 décédés, 1 évacué et donc 927 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale les populations au respect des mesures de prévention collective et individuelle, les gestes barrières. Je vous remercie. askan wi maa ngi leen di jottali lim bii ñu am tey ci mbas mii ñu naan Covid 19 ci fii si suñu réew ci alal ba tey bii di juróom-benni fan ci mois de mai 2020 jot nañu résultat virologique yi ci junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko téeméer ak ñeent. dellu si nañ ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu téeméeri contact am nañ ko mooy yi nga xamante ne ñu ngi koy saytu te di ko topp si suñu bëri bu liggéeyukaay yi ñeenti ci ñoom moom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi ci diiwaan yi pikin am na benn benn Tali am na benn Sédhiou am na benn Vélingara itam am na benn ci malaat yi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital feebar ñaar fukk ak ñett ci ñoom bi ñu leen saytoo gisatuñu ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu am nañu nag juróom benn cas grave yi nga xamante ne ñu ngi ci service réanimation yi hôpital Fann ak hôpital principal ñi nga xam ne ñoo tëdd ci malade seen wér-gu-yaram ñu ngi am tan comme niñ leen ko waxee démb ñu ngi am nakar di leen wax ne Sénégal amaat na beneenu nit bu génn àddina mooy tax mu toll léegi ci fukk ak ñaar kooku nag waxambaane bu am fanweeri at la ak juróom-ñaar ñu ngi jaalee waa këram te di ñaan yàlla xare ko ajana ci bësu tey bii dalee ko ba mbas mi ñuy wax Covid 19 ñëwee ci Sénégal ba léegi ñu ngi tollu ci junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett ci li nga xamante ne. ñooy ñu am doomu jàngoro ji ci yooyu ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett wër nañu fukk ak ñaar génn nañ àddina benn delloo nañ ko ci dëkk ba mu jóge woon ci ñi nga xamante ne ñoo tëdd tey ci lal hôpital feebar ñu ngi toll ci juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar